Euh, président yi di siyaar ñi fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di bëgg a rek ci waxtaan wi nga xam ne moom lañu ñu mbokk mi nar a defal muy Serigne Wadane Diop euh, ku ne xam na ne ku ne gàmmo danañu waxtaane Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax gàmm moom moo ko moom moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax euh, Serigne Wadane danañu indil waxtaan waaye ci njalbeen danañu leeralal ay tomb yi nga xam ne noonu la Serigne Touba daan gàmmoo ci njaareem bu noppee mu door a dugg nag dëgg-dëgg ci waxtaan wi muy waxtaanal ñu ci jaar-jaar yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, nga xam ne moo ñu fi dajale ñu teewlu nag bu baax te gën a bàyyi xel euh, barab bi bi ñu nekk xam ne néegu yàlla la waaye itam gën a teewlu guddi gi ñu nekk xam ne guddi ngën gi mbindéef la kon ñu gën a bàyyiwaat xel lool bu baax a baax euh, ñu may ñu ak déglu wàññi coow li euh, te teewlu bu baax a baax a baax te xam ne gàmmo lu am solo la ndax sëriñ saalihu radiallahu anhu daana wax ne guddi gàmmo yemale ko ak guddi ga ko jiitu ak guddi ga ca topp dara jëru ko ci ab jullit kon nag war nañoo gën a jox guddi gi worma gën koo bàyyi xel bu baax gën a taataan gën a teewlu te xam ne guddi ngënil la goo xam ne lépp lu ci waay faggu euh, sunu borom mën na la koo defal kon nañu gën a bàyyiwaat xel bu baax te ànd ak teewlu duñu guddal xam naa dañuy jox euh, mbokk bi sëriñ Wadane mu dugg ñun ci waxtaan wi incha allah sëriñ bi tafaddal mashkuran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 عرف ششي من صلاة وتسليم عطر اللهم خبره الكريم عطر اللهم خبره الكريم بعرف ششي من صلاة وتسليم بعرف ششي من صلاة وتسليم عطر اللهم خبره الكريم عطر اللهم خبره الكريم بعرف ششي من صلاة وتسليم بعرف ششي من صلاة وتسليم عطر اللهم خبره الكريم Salli الإصابة ثم الأولياء من والعاملين من وبصديق ثم نورين ثم أبي سبتين